mbokki académie tasawuf maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen baal xaq te di leen baal xaq ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu dolli ñu tawfiq jël si nañ ci seen jataay bi nga xamante ne moom lañu doon am ci téere bii di maqaamaatul xariiri yi ñu koy leeral ci làmmiñu wolof tey la fukk ñaar fukkeelu dars bi su ko defee mu alif bi wax ne فقلت له ما أعذر وابلك فقلت من ما وحله نيلكو منكو ما لو مغ مغ أعذر بارلنا وابلك سوامي أه، ما أعذر ما أعذر وابلك لم تجيب له موي ظاهر maanaam li mu teg ci zahir daal mooy yéem euh, waa maanaam taw bu bari alwablu mooy matarun kabir maanaam taw boo xamante ni taw bu bare bari la moom la wala di tuddee waame da koo bëgg a wax ne ko maanaam li ma xam ci yow li nga fi wax ak li nekk ci yow li nga am ci balaaxa ak li nga am ci adab li nga am ci xam-xamu adab bari na lool moom lay nuróole ak li nga xamante ni moo di taw bu bari muy waar bi tax mu ne fa xultu ma wax loo ñeel ko ne ko maalu màgg-màgg ag arzara maanaam arzara baril na wabla ka sawaamee nee na fa xaala mu ne ma wax sartu sart ba nag am la ko moo gën a moom loolu nag masal la boo xamante ni dañ koy daan faral di wax ci koo xam ne dafa am lu mu sartoon lu koy fàttali li ko wan ne ko sart ba loola nga war a def maanaam la nga waxoon la nga sartante woon loolu nga war a def xam nga da ko wax ko yow borom xam nga di yéem kàddu yi nga xamante ni moom la dégg ci moom muy wayu neex yeeg euh, adab bi nga xamante ni moom la dégg ci moom waa ji daf koy wax ne ko wa sartu am la ko maanaam la nga sartante woon ak man te mooy bu ma wayee dinaar bi maanaam su ma ŋàññee dinaar bi nga jox ma dinaar bi loola ci bopp nga def ko moo gën nga nekk fi naan ay yaa bari bëri xam-xam ak ñu ne del moo tax ne ko wax sart sart ba am la ko moo gën a moom nee na fa nafaxtuhu ma sànni ko xaaris mooy wax nee na fa nafaxtuhu ma sànni ko bi dinaari ci dinaar ba ak saani bari aji ba ko waxee rek di koy sànni dinaar bi te mooy dinaarum ñaareel ba te mooy bi nga xam ne dafa waxoon ne dama ko waxoon ko boo boo ko xasee rek ma daal ma daal la koy jox xaalis nee kon ma daal koy sànni wa qultu lahu ma ne ko awis huma bil mathani muslul leen ci fatiha al mathani tur ci turu fatiha léemoo leen fatiha ñoom ñaar waaw nee fa alqaahu mu sànni ko fii famihi ci gémmiñam wa qaranahu te mu lënka lënkale bi taw amihi ci seexam ba mu daal di seq dinaar bi ci gémmiñam lënkale koog dinaar bu njëkk ba te mooy ba nga xam ne dafa waxoon xaalis da koo wax ne ko boo ma tàggee maanaam boo tàggee dinaar bi ma jox la ko nee na da koo booreg dinaar bu mu jig yi lënkale koog moom nee na wan kafaa mu dellu nag yaxmalu di sant maxdaa xëyam ma wayam ndaxu tamit tagg an naadiya penc ma wa nadaahu ak mayam ko nee na mu dellu nag sant lool xëy mu neex mi nga xamante ne am na ko te mooy ñaari dinaar yooyu mu am di tagg waa penc ma waaye di tagg itam may ga nga xamante ni moom lañ ko ko may qaal al xaris ibnu hammam xaris ibnu hammam nee na fa naajaa nii xal bi sama xol daa di may déey fa naajaa ni mu diyante man ak qalbi sama xol bi annahu abu zaydin ne moom kat kii nga xamante ne moom moo doon wax léegi kooka mooy abu zaydin wa anna ta wa anna taarujahu li kaydin làgge làggelu gi nga xamante ni moom la doon def itam dara waralu ko lu may am pexe la ci lal rek waaw wa anna taarujahu ak ne ki làgg làggaloo nga li kay din ñeel na am pexe kon day làgge làggelu waaye ca dëgg-dëgg làggewut waaye làgge làgge làggelu gi dafa am fexe moom ci la nee na fasta attuhu alxaaris mooy wax fasta attuhu ma daal di koy delluloo wa qultu lahu ma ne ko qad arifta xameef na la bi was ci ka ci saw melo waaw ma ne ko ah yow day xamees na la waaw xamees na la ci saw melo de kon nag fastaqim jubal fii masika ci sa dox baye boo nga dox normal rek waaw Anas ibnu Hammaam bi mu settantalee ba xam ne kii kat Abu Zaydin la te fekk mu ngi doon làgge-làgge lu nee na mu ne ko yow de xamees na la ci saw melo kon nag baye boo rek nga jéema nga dox ni nga ni nga daan doxe waaw waaye lajj woo bay boo rek nga dox dox boo xam ne dox bi jub la Abu Zayd da doon làgge làgge la fa qaala mu ne ko in kunt ibnu hammaamin in kunt ibnu hammaamin su fekkee ne yow yaway ibnu hammam te mooy xaaris ibnu hammaam fa xuyita kon nu yëf nu yóof na la bi ikramin tik teral waxayita yàlla na nga dund itam bay na kiraamin ci diggante way tedd su fekkee ne yowee ibnu xammaam day kon nuyu na nuyu nañ la nuyoof na la ci teral waaye itam ñu ngi lay ñaanal nga dund ci diggante way tedd xaaris nee na fa xultu ma ne ma ne ko anal xaaris man man maay xaaris ibnu xammaam fa kay fa xaalu ka naka say mbir wal xawaadisu ak xew-xew yi xew-xewi jamono yi fa qaala mu ne ma Abu Zayd ne ma ataqallabu maa ngi wëlbati ko fil xaale ne ci ñaari mbir yi ñaari mbir yi mooy yan mooy bu sin ak wànc wànc nag mooy ak ñàkk ak tiis war a xaayit ak dund gu neex waxaan mooy bu tamay wëlbatiku itam maar xëy ne ànd ak ñaari ngelaw yi zazain zazain muy ngelaw luy rid muy ngelaw lu am doole war a waru xaa in ak ngelaw loo xam ne daal lu lu lu lu lu woyof la lu lu lu ngelaw la loo ne daal maanaam amul doole mu ne ko man daal maa ngi ci ñaari xaal yi rek ni jamono baaxoo def nga xamante ni léeg-léeg ma ànd ak tiis ak ñàkk léeg-léeg itam ma doon koo xam ne dund gu neex ci lay nekk adduna mu noonu la tey day neex ëllëg mu naqari li muy wax naan ngelaw luy riddi muy ngelaw lu am doole ak lu amul doole itam daf koy misaale rek dund gi mu nekk nga xamante ne tey mu neex ëllëg mu naqari moom lay misaale ngelaw lu riddi lu am ngelaw loo xamante ne lu woyof la loo xamante ne lu yoram la faqultu ma ne xaaris euh, ibnu nee na faqultu ma ne ma wax ko ne ko kayfa daayta naka ngay woote alxasala ak lagge lan moo tax ngay lagge-laggelu wama mislouka te déet sam kem man muy koo xam ne hasala kaf na maanaam lan moo lan moo tax daal ngay ñëw fii di woote woo ne da lagge te ku ne yow war ngaa weesu fooy kafe bi di di tuumaal sa bopp ak làggee te fekk làgge woo lu tax loolu nee na fas tasarra mu daal di làqu nag bisruhu mbégam ma ëlla si ba nga xam ne kaana tajal lii doon nekkoon na di di feeñ wala tajal laa bi ma ko waxee loolu rek ne ko lan moo tax nga ñëw ñëw fii di làgge làggelu te yow ku mel ne yow war naa weesu di nekk fii di kaf di làgge-làggelu nee na ma nga xamante ne moom moo nekkoon ca moom dafa daal di làqu summa an sada mu sadd nag way xii na walla ca waxtoo nga xamante ni wane na ginnaaw ñetti bayit la way mu wax ne taarajtu la raxbatan fi laraj walakin li aqraa baabal faraj وألقي حبلي على غاربي وأسلك مسلك من قد مرد فإن لامني القوم قلت اعذروا فليس على أعرج من حرج من تعارجت لج لج لنا لا رغبة ديت ديت قمم في العرج تلج لج تلج ci تلج maanaam daal dama ñëw fii di lagge-laggelu waaye lagge-laggelu googu jubluwuma ci bëgg a lagge maanaam bëgguma bëgguma amuk lagge waaye damay lagge-laggelu waaye nag li waral may lagge-laggelu mooy dama bëgg wuññi fëgg bunt wuññi njàqare dama bëgg daal samay njàqare wuññi ko moo tax may lagge-laggelu kon lagge-laggelu gi ay pexe laa ci lal waaye tekkul ne dama làgge wala boog dama bëgg a làgge moo tax mu ne wa ulqiyata sànni na xabli sama buum ala xaari bi ci sama joggare wa asluka tama soobu maslaka man soobu waayu ka nga xam ne xad maraja xad maraj maanaam xad maraja jaaxase na ay mbiram dama bëgg doon koo xam ne daal bu ma fi wane ak làgge làggilu bu ko defee ku ma gis day jàpp ne dama làgge te bu fekkee ne damaa xas ba làggee rek daanaka damay doon koo xam ne damay daal di teg tinkiku lu ma neex def tey tamit bëgguma doon koo xam ne samay mbir day day day day nekk wenn melo damaa doo bëgg doon koo xam ne dana ko naqare takk nga takk laa ndax nit ki bu naqare takk rek euh, lu ci bari bari dana ko mën a dana ko mën a bët waaye su fekkee ne mënees na koo takk rek su boobaa yu bare bare du ko mën a bëtt moo tax ma ñëw fii di làgge làggelu bu ko defee fa in laa ma nii bu ma yeddee alqawmu nit ña maanaam su ma nekkee di def loo xamante ni lu ma neex la ak def loo xam ne waruma koo def fa in laa nii bu ma yeddee alqawmu nit ña xultu ma ne leen i'ziru waaw i'ziru gàntal leen ma rek waaw fa laysa ala arajin fa laysa ala arajin arajin déet muy war aji làggi min xarajin ci benn bàkkaar su fekkee nekk naa di def loo xamante ne lu ma neex la su ma nit ñi ne lu ma lu tax ngay def lii ngay def ma ne leen ah man kat dama làgge te alxuraan moom newoon na laysa alal ama xarajun wala alal araji xarajun wala araji xarajun xam nga jamono bi ko alxuraan di wax yàlla di ko wax lam ci jublu woon rek moom mooy Eh, ñi nga xamante ne dañoo war a dem jihaad lànk bañ a jihaad yi suñu borom do da leen doon tëkk waaye tamit di xam xam le ne ñi nga xam ne dañoo làggee wala ñu amu ngumba ñooñu seen ñàkk dem ca xare ba duñ ci am benn bàkkaar moom nag foofu la tib bu daal di wax ne ginnaaw sunu borom nee na falay sa ala aarajin min xaraj maanaam lay sa alal aaraji min xaraj kon na may def mooy di jéem a làggi-làggilo bu ko defee lépp lu ma def rek su bu ko defee buñ ma waxee ma ne leen ngàntal leen ma kat ndax ki nga xam ne dafa amee ak làgge amut bàkkaar kon lu ko neex rek mën na koo def su ko defee kon dafa mel ne maqaama bi nga xamante ni mooy addinaariya dal dinay jeex fii la yem bu ko defee ci dars bi nga xamante ni moom lañ jëm fa la duggee ci maqaama addimyaatiya ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci teewlu gi in uridu illa al islaaha ma stataxtu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu